rokaat yi ëpp ak quarante indi muy benn classe boo xam ne dañ ci mën a dugal xale yi nga xam ne jotuñu woon dugg école wala ñu teeloon a génn école ba fàtte euh, lu am solo la ci waxtu yi mu ñëwee parce que day dimbale état Sénégal dimbale ministère bi ci mu mën a euh, peeg xale yooyu pour ñu jàngaat loolu mooy classe passerelle mais moom dafa ñëw ne dafa bëgg a dolli ci li fi nekkoon xam nga Sénégal def na lu bëree bëri bëri ci lool mu bëgg cee dolli moo tax mu indi modèle bu bees tuddee ko centre d'éducation non formelle à visée scolaire mooy ay centre yoo xam ne dañ ci dugal xale yooyu nekkul école mais liñ ci jublu mooy du alphabétiser leen rek mais fexe bañ jàngaat ba ñëw dab si eh, eh, xale yi nekk ci biir école bi. dafa méngoog li UNESCO indi woon ren ne nañu xalaat ci nan nañuy fexe ba. bëreb yi nga xam ne ci la ñuy delloose xale yooyu ak di tàggat mag ñi doon ay bëreb yu mucc ay ñu xoolaat ko pour mu gën a mucc ay gën a may xale yi en tout cas chance pour ñu réussir ci njàng mi. ñu xoolee passerelle yi nga xam ne moom lañ doon activité euh, projet yi ñu doon doxal boobu ba léegi première étape ak deuxième étape la yemoon.

mébét bi moy am centre passerelle yu nga xamné euh, dañ ko déjee manam euh, pour xalé yooyu lañ ko jagleel centre yi ak commodité yi fo wara am yépp nangu nañ né euh, koom bi jafé jafe la fu ci fann bu jël rek koom bi jafé jafe la parce que bëgg-bëgg yi dañuy yokku donc fi aussi koom bi demewul noonu mais nekkul gàllankoor bu bu bu am solo parce que am nañ fu leen tagaté parce que bi ñu commencé euh, passerelle yi ba léegi ñu ngi jël ay xale di leen delloo ci biir bu ñu jëlee paquet bi rek su ma jëlee exemple paquet bi nga xam ne daaw euh, Deyalène euh, tàggat na jël na fukki junni ak ñaar ci ay xale yu nga xam ne ñu ngi woon bàyyi woon nañ école wala masuñu dugg école ñu jël leen tàggat leen dugalaat leen ci système bi te ñooñu ci école formelle bi lañ leen tàggatee dafay am heure yu nga xam ne dinañ ko mën a utiliser am na ci sax béréb yu nga xam ne collectivité territoriale yi dañu tabax wala dañu jox ay classe fu mën a nekk classe fu ñu mënee jàngee fu nga xam ne fa lañ tàggatee xale yi dugal leen donc li gën li déyaal li nga xam ne mooy mooy mooy li ñu bëgg bu ñu sañoon euh, am classe bopp mais loolu nek nek jafé jafé mais nekul bu gàllankoor dal bu nga xamné ne mënuñ ko mënuñ ko surmonter